شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا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 إلا الله لا إله إلا الله لا borom Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julli ci mbokki taalibe yi ñu seetaan en direct de Touba ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak ginnaaw sant suñ borom julli ci yonent bi di ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim xalifaab Khadim Rasoul di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér ba lépp lum naan lépp lum yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim suñu borom kattanal ko mu defe ko nu kowe njort loolu lañ koy ziare itam xalifa Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Amdi Modou Mbenda Fall moom itam ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér mbokk yi ajumaay tubaa tey ji mooy ajuma ji jëkk ginnaaw ndigalul mu Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général de Mourides ni ngeen ko gisee ci waajtaay wi ci wàllum communication bi bis bi nag agsi nañu juróom-ñetti waxtu jot na sëkk fi nga xam ne ni moo di diggante daaray kaamil ak jumaa ji ci penku fi nga xam ne nii moo di jullikaayu it bi tey jii nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha bis bi nga xam ne nii dañ ciy boole zikrula jàng alxuraan ak xasida ni mu ko waxee woon bu juróom-ñetti waxtu jotee mbooleem Baye Fall yi kuréelu Baye Fall yi ñëw nañ teew fii ànd ak seen i jëwriñ ak seen i kilifa tàmbalee ko baatub la ilaha illallah di turu yàlla wi nga xam ne nii képp ku ko tudd rek sexeel xel dem ci Baye Fall ni ngeen koo gisee fii nga xam ne nii moo di diggante jullikaayu it bi ak armel yi waaye ci penk jumaa ji fees na dell ngeen gis mbooloo mi ay sappe yu bëree bëri te yaatu ñu ngi wër jullikaay it bi ngir nag jëfe ndigal loolu ci fàttali Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moo ko jox mboolem julliti ak taalibe yi Baye Fall yi war ko ubbee Zikrula ñu war tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ba fukki waxtu bu noppee ñu door a dem nag ci xasida yi kon fii may wax ak yéen nii ni ngeen ko gisee Zikrula bi mu ngi jolli kuréel yi ñu ngi ñëw kilifa yaa ngi fi mbokki taalibe yi ñu ngi seddale kafe yi ñu ngi seddale ndox yi ak bépp liggéey boo xam ne nii dana ko yewenal ci kanam tuuti kon duñ def lu dul ànd ak yéen dugg ci biir liggéey bi xool jëwri ñi nga xam ne nii ñoo jiite mbir mi ñu daal di leen jox kàddu gi su ko defee ñu béral seen ak cant ak seen i soññe ci kanam tuuti danañ ko gën a yaatal fii ci Touba. taala ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen ndokkeel ci ndigal li teel gi tàmbali gi ak jëfe gi di nekk loo xam ne nii du ne guléet ndax lu yeesaal la diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal li tey li ci Baye Fall yi sóoboo yan kàddu nga ciy barkeeloo. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi sant yàlla bu baax di jullit yonente bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal baax sëñ Mountakha Mbacké suñu borom guddal aw fanam lool wéral ay cëram ba liggéey bi muy liggéey Serigne Touba maam ci lu kawe njortam ànd ko njabootu Serigne Touba gépp noonu lañu ñaanalee Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di ñaan suñu borom defal ko tawfeex yoro fan wu gudd lool waa ànd ko wér ba liggéey bi xam ne moom la liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall mu am ci lu kawe njortam di leen xamal ni euh, lii du guléet euh, di rub sëñ Mountakha nekk Serigne Touba ba léegi euh, mi ngi woote bis boo xam ni bis sukkarlaahi la defe naa woote na ko ñaari yoon bii ko ñetteel ñu ngi ko ci ñaanal liñ ciy sàkku di ko ci sàkkul murid yi yàlla na ko ci yàlla may loolu ci bàkkeeb Serigne Touba xanaa di rafetlu lii bu baax a baax rek euh, sëñ Mountakha moom yërmande kese la te ndimbalit la bëggal jaam ñi moo tax waxtu nekk ñu ngi woote bisu sikaru laahi ndax day mel ni sikaru laahi day loo xam day lu màgg ci suñu borom day mel ni mooy tur tur yàlla yooyu xam ni ku ko ci woo muy la loolu moo tax sëñ Mountakha waxtu wu ne mi ngi woote turu yàlla di jiital Baay Faal ci loolu di woote njàngum alxuraan di woote njàngum xasida di woote di jàngul ay salaatu ala nabi di euh, def lépp loo xam ni euh, lu yàlla digle la di moytu la jàmm lépp lu yàlla tere day mel ni kon sëñ Muntaxa euh, li nga xam ni mooy fi sëñ Tuubaa tegoon tànkam ci jaamu yàlla ak di ko liggéeyal ak di liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Muntaxa foofu rek la nekk ñu ngi koy ñaanal baax a baax di rafetlu lii di ñaan suñu borom defal ñu taw feex ba li nga xam ni moom la sëriñ bi bëgg jubli ko ci lépp di yërmande yàlla nañ ci am lu kawe suñ njort loolu barki sëriñ Tuubaa ak Seex Ibra naa benn euh, soññ rek lay doon jëm ci mbokki Baay Faal yi ci ndigal li ni ko sëriñ bi waxe woon diggante juróom-ñett ba fukki waxtu loolu itam soññ ci mbokki taalibe yi bu baax a baax rawatina zikkarkat yi waaw xanaa di di di di di fonkaat di soññaat Baay Faal yi baax noonu ko sëñ Muntaxa woon ndax daa waxoon ni ñu tàmbali juróom waxtu ba fukki waxtu day mel ni loolu xam naa moo tax ñuy profité des na ko respecté bu baax a baax waaye di ci profité rek di sant Baye Fall yi te di leen ñaanal euh, te xam ne sëñ Mountakha moom ndimba rek la leen bëggal xéwal rek la leen bëggal kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di soññ Baye Fall baax a baax ñu gën a góorgóorluwaat bu baax gën a laxasaay waat bu baax gën a fonk ndigal te xam ne li ñu sàkku lépp ci baatum ndigal rek la nekk nañ ko góorgóorlu baax fonk baax a baax Serigne Mame Cheikh Far Zikrula jiite fédération daayira yi zikr fii ci réew mi ak bitim réew kon sëriñ bi ginnaaw ziar yi rek ak ndokkeel yi ngeen jiite mbooleem euh, fédération daayira yi nga xam ne ñooy tudd turu yàlla tey ñëw ngeen sóobuwaat ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha yi yan kàddu ngeen ci yëkkate waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy ziar bokki taalibe yëpp di ziar bokki jullit yëpp di jiital ci ziar bi sëriñ Mountakha mu sëñ Basirou bu ko ñaanee yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu ko di ko ñaanal bu baax sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbenda yéen ñaan yàlla sunu borom yàggal leen te wéral leen di ak cant bu baax ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bii mboolem fu kuréel tuddkatu yàlla nekk rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax te di sant bu baax a baax te di ñaan ci dooley maam Cheikh Ibra liggéey bi ni nu ko bi digale yàlla na nu sëriñ bi defal ndimbal ak tawféex ban defal ko ko ni mu ko bëggee ci barakati maam Cheikh Ibrahima Fall ndax li sëriñ bi wax rek ku nekk ca la la war du la mukk li nga war a am am na lu bari loo xam ne buñ la ko defalee ah, ta nga xam ne lii ñu la defal jomb na la lay taw feex ji mooy nga xam lan la defal te téye ko jiital ak cant rek te xam ne euh, lii rek lan am mooy jëfe ndigal bàyyi tere ku xam sax sëriñ bi xam li mu yéene ak li mu bëgg ci donga yi kenn ku nekk loolu war naa mën a yomb ci yow ndax turu yàlla moom kenn ku nekk min na ko ci Baye Fall donte ñëpp la ko suñ borom digal waaye nag maam Cheikh Ibrahima Fall dëkkoo ko ba ñëpp askane la ko di jiital ak cant akum ñaan di ñaan suñ borom eh, defal ñu defarub saay rek baatin yàggal fi sëriñ bi mu yàgg ko digal sëñ Amdi Fall mu sëñ Modou Mbend ñu yàgg ko jëfee ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi santaat bu baax te lii leen santaat bu baax a baax a baax. mel ni kon ndigal li ajuma ji di ñëw itam ah, ci la bokk. waajtaay wi ak soñña bi ñeel mbokki Baye Fall yi bisimilah. moom day euh, ak cant rek la ñu la ñu jiitalaat ndax sëriñ bi moom boo xoolee liggéey bi day wane ni rek waruñoo am genn jot bu du liggéey sëñ Tuubaa rawatina nag lii nga xam ne mooy turu yàlla kon mbokki taalibe yi nan bàyyi xel bu baax ci kin jëm si ak ci lin jëm si kin jëm si mooy sëriñ Tuubaa lin jëm si mooy turu yàlla ngir jëfe ndigal tase mooy euh, ajjuma bi ñu jëm ñu ko defee noonu lañ koy defee nan fexe fépp fu sëriñ bi digal fu mu ci àgg rek fexe jot sëriñ bi ndax mooy ndimbalu tey mooy ndimbalu ëllëg te ku la gën a xam tey ku ne moo la gën a xam ëllëg jërëjëf jëfati soññee ci euh, bisub tey bi ak yeneen bis yi nga xam ne nii ay ndigal lay doon incha allah. xanaa di santaat yàlla di santaat yàlla baax rek ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu sëriñ bi boole ak moom ndax bi nga xamee ndigal lii tam ak seen seen fàllu sëñ Mbenda daj ci njabootu maam Cheikh Fall gépp moom sëñ maam Cheikh Fall mi si korulaax nga ne moo jiite ëllëg tuddkat yàlla yi sëñ bi teg liggéey boobu ci loxoom man ko bokk tuddkat tuddkat yàlla yëpp waaye ñoom ñëpp wuy si nañu woote bi ndax woote bi liggéey la boo xam ne sëñ Touba moo koy liggéeyloo maam Cheikh Fall kon nag comme ca boole na nga xam ne tànneef nga ci tànneef yi mooy ñii nga xam ne leen tànn ñu war ñëw taxaw tur yàlla yi te mooy kuy kuy wax laa ilaaha illallaah rek te yéen ko waxe ci fii Touba ko sëñ bi ndigalee ci Touba ajjuma yi itam des na waaw ñu xam ne sëñ baa ngi natt suñu pas-pas suñu pas-pas la sëñ bi natt pas-pas boobu nag a dolli ko bu ba màggal ga ñëpp nag ñu gën koo bàyyi xel di leen yóbbante am nuyoo ci sëñ Youssou Diop mi nga xam ne moo jël nga xam ne waxuma la boole gi ñu sëñ boole liggéey bi waaye bëgg bëgg maam Serigne Fall liggéey bi mu da ko toll loolu ñu ngi ki yóbbante ay cant ak i ngërëm di ñaan nag ci barkeb sëñ Touba yàlla neen maam Serigne Fall taxaw te dimbal leen ba nga ba ngeen yegg ndax yoonu murit lu ca am na nga ko sante maam Serigne Fall ba mu dina waaye fas na yéene daal fii ba ba ajuma yi ni ko sëñ bi bëggee ajuma jot dina raw moom dañ wees woon incha allah rabbi ñu ngi sant bu baax te gërëm ñëpp xanaa di nuyu rek di sant Cheikh Amadou Mountakha si turu sëriñ bi di ko sant bu baax di ko ñaanal mu yàgg te wér lim jublu si ligi liggéey bii lim si jublu ñi ngi ñaan si doole Serigne Fall yàlla na ko am yàlla na doon ak fanam mu gudd yàlla na doon ak wéram yàlla doon taw féexam si murit yi ni mu bëggee taw féexam murit yi yàlla na ko am barki maam Cheikh Fall li mu bëggal murit yëpp yàlla na ko am yalla murit yi am liñ bëgg lépp sëñ mën taxam waaw taw rek ndigal li daa mel ni tey la ak beneen bi di ñëw ak yeneen yoo xam ne ni rek yéen a ngi koy nëgandiku soññe yi ak waajtaay wi loo ci soññ mbokk tali bi fa fas yéene jëfe ndigal li rek ndax dañoo ni ne àjjuma ji bu dellu see dañuy defaat nii dafa mel ne wax tudd nañ sax ba màggal incha allah fas nañ ko yéene bëggu sëriñ bi rek moo nu fi bàyyi bëggug sëriñ bi rek moo nu fi bàyyi ndigalam rek nu fi bàyyi sëriñ bi mi ngi soññi si mboolem ku di Baye Fall ku yaakaar Cheikh Ibrahima Fall bis bii na bokk si sa si sa yitte na bokk sa calendrier ajjuma ju jot fii ba màggal mu daje fii tudd yàlla ñu ko sëñ a bëgg ñaanal ko nag mu yàgg fi te wér ndax sëriñ bi wax na ne lépp luñ si faggu dina am kon liñ siy faggu ñaan mooy sëriñ a yàgg fi te wér sëriñ Amdi Fall yàgg fi te wér nun murid yi ñu yàgg seen ginnaaw yàgg leen a liggéeyal ndigal lu ñu jox ñu am kàttan mën koo jëfe loolu rek mooy sunu bëgg. wax Baye Fall wax dal wax yar wax teggin loolu itam beneen soññe bu gàtt rek ñeel mu mbokk taalibe yi ñu seetaan en direct de Touba. waaw ak taalibe Cheikh Rural moo ko jàngale te si ay ay tomb la ko jàngalee tomb yi bi si jiitu mooy yar ak teggin loolu moom yàgg nañ koo dégg yar ak teggin képp koo gis muy wuyoo Baye Fall wuyoo Cheikh Rural nga xool jëmm ji génn si yar ak teggin dara du si dara du yar ak teggin moo jiitu ndax li li mandarga ak bi lépp mi ngi feeñee si yar ak teggin. bu bu taalibe bi di feeñal ci ay jikkoom ci ay doxam ci ay waxam ay jëflanteem ak lépp ñëw sukk fi suuf di sa mbokkum taalibe wayfal sa bopp wàcc sa bopp wax wax ju ba ci wax koo ci kaddu gi ba ci kaddu gi sax da nga koy lewetal ba nga xam ne ki ngay waxal bu doon bu dëgg nga koy waxi dëgg ga dana nooy nepp ba mën koo dégg loolu la moom moo moo Cheikh Awa Balla Gaye Chikru Lahi waaw noo ngi leen di siyaare baax xanaa xanaa Baye Fall yëpp murit yëpp seen xol sedd ci guy rek ñu làngal seen Xaadim Diouf sikrulla sëñ xaadim la sëñ xaadim Diouf bisimilah kon tey yéen a ngi ci waar wi nga xam ne nii mooy seen liggéey seen matt waaru sëñ Touba mu nekk ndigal tey Al Mouridiyyah TV mu ngi lay taalal micro am. Al Mouridiyyah ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp seen tur seen sant ñun ñu ngi bàyyi ko ba Bignona fii lañ dëkk nag waaye ñoo fi teewal waa Touba Bignona seen kilifa xam na fi bu baax na fekk nañu fa ñu ngi bàyyi ko Bignona teewal bi Baye Fall yëpp am ndigalu Serigne Mountakha Mbacké tudd yàlla ak wàccee kaamil jàng alxuraan jàngi xasida ñu bàyyi ko Bignona teewal fi waa teew Touba Bignona yëpp ñun waaw. jërëjëf sëñ naa kàddooy soññe yi ci yeneen digal yi di ñëw itam eh, incha allahu rabbi. mu mel ne sëriñ bi def nii ñaar eh, fukki ajjuma ak ñaar lañu koy def ndigal lu ñëw rek ñi ngi ñaan yàlla suñu borom may ñu ñu wér fekke ko tal ko di soññ suñu bopp di ñu Baay Faal yëpp di xam ne sëriñ Muntaxa Mbàkke mu suñoo digal lu suñu njariñ ñu góor góorgóorlu ci rek. fu waay mënti nekk te mën a ñëw nga ñëw nii ñu koy taxawoo nii tey fii ci Touba région yëpp ñu ngi ko fay taxaw ci kër sëñ Touba yeeg jàkka yeeg jumaa yi nii rek lañ koy doxalee ba ko. teenu maam Cheikh. Touba Tene Massa waaw tey ngeen ndigal li. Mhm. di zikrulaa bi. waaw yëg-yëg bi taxawaay bi ak lépp loo ci mën a. waaw xanaa di ko rafetlu rek di góorgóorlu si ndigal si xam ne suñu Muntaxa moom bëggul lépp suñu njariñ rek xanaa di ko ñaanam yàgg fi loolu te wér ndax lii dafa rëy yëg-yëg bi ñu daal mooy ñëpp am jàmm si ñaan suñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér yéen tamit nag ñu ngi leen sant li ñaanal seen média bi yàlla yokk bu baax a baax a baax baat suñu Tuubaa jërëjëf kontaan nañ loolu ñu ngi ziare rek xam naa tur bi rek la ñuy euh, laaj Abdou Salam tey ngeen ñëw fii ci euh, Zikroullah bi di ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha jëm ci Baye Fall yi ngeen di Baye Fall yëg-yëg bi taxawaay bi ak soññe yi bisimilah waaw soññe di xanaa mooy jot ndigal rek te jëfe ko ndax Sëriñ Tuubaa def ne am amut lu dul ndigal loolu ndigal nag ab caabi la bu ëppee du tijji bu yéesee du tijji kon ñun ndigal rek la ñuy déglu ñun Baye Fall Baye Fall dal li ko tënk lépp muy ndigal ndigal nag jafe la looloo waral teewaay bi ak pas-pas bi murid yi àndal Touba kam jaag lañ bàyyeekoo. ko am na ab yóbbal booy soññ mbokki taalibe yi rek Baye Fall rawatina dal gi rawatina ci xurum bu tedd bi ñu nekk tey. waaw barab bi moom. barab barab bi barab bu sell la ñu gën a sàmmonteeg rek mboolem li Serigne Touba tere te ñëpp di ko dégg saa su ne Serigne Mountakha di ko fàttali. Euh, média yi it ñu mel ni yéen di ko li murid yi mooy gën a sàmmonteeg woor may Touba rek lépp loo xamante ni Serigne Touba bugg ko ci dëkkam bi góor ak jigéen mag ak ndaw ci yem nañ ko bàyyi xel te di ko jëfe suñu kemt lay kattan loolu moo ñu fi moo ñu fi war ak jërëjëf. xam naa tur beeg foo leen bàyyeekoo ñëw barkeelu si fii ci Zikroullah bi bisimilah. donga buñ naan lamp jong moom sëñ Cheikh Fall ndigal waaw liggéey bi moom xam nga li ñu def nii Baye Fall social si moom lañ ko ñëpp royee ndax lépp maam Cheikh Fall la loolu nag moo tax nun nu bokk boole ci lii rek waaw defar café gi di ko jox murid yi ngir sëñ Bamba Cheikh Fall rek waaw kon bi tey euh, mën nañ ne bisub cant la waaye bisub bernde la itam waaw moom ñoom ñooy ñooy ànd ndax turu yàlla mooy doxal lépp ci kaw ba ci suuf turu yàlla ay doxal lépp kon buñ ko dee boolee sëñ bi joxe ci ndigal lu boole ko tawféex xéewal yi kafe yeeg len lu ci nekk berne yi maanaam loolu moom fees na fees mën a yem waaw kon nan bu gàtt rek ñeel mbokki taalibe yi rawatina na Fall yi nga xam ne tey jii ñëwaat nañ yeesa ndigal ci pàkk bu tedd bi waaw jëfe ndigal rek jëfe ndigal bàyyi tere rek Baye Fall loo waay mën a wax jëfe ndigal bàyyi tere rek mooy waar yi waaw tawféex laa ilaha illallah laa ilaha illallah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 إلا الله لا إله إلا الله kon mbokk yi jërë ngeen jëf lii nag mooy euh, ndigal li nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe woon na ko ci ajumay Touba ajuma ju jëkk ji ñu ubbee ko Zikrula ngeen gis 8 bi mu jotee la Baye Fall yi ñëw fasanti ci ay kuréel ngeen dégg seen jëwriñ sëriñ maam Cheikh Fall. waaye kilifa yitam teew nañ fi nga xam ne nii moo di Touba diggante jumaa ji ak jullikaayu it bi jàpp armeli ndigal li ubbee nañ ko Zikrula noonu lañ ko daal di wéyale ba fii xam naa ne ñaari simil rek dinañ dakkal njàngum xas mi daal di wéy ñu daal di waajal julli ajuma gi. kon ajuma bu njëkk bi Zikroullah nii ñuy wax ak yéen ñu ngi koy def en direct ci ay euh, bërëb yu fasantikoo moo xam muy internet rajo wala télévision ngir yaatal ndigalal Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér alhamdulillahi alkarim dhil minan ala ishtighali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim dhil minan ala ishtighali bi furudin wa sunan شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا